mais lan lañ ñu jàpp nañ Karim Wade jàpp nañ Bamba Fall xaw ma ak Modou Ndiaye Ismaïla Seck Pathé Diop ak ak Khalifa Sall c'est des politiques ça ne ça n'intéresse pas la majorité des Sénégalais je suis désolé c'est pour amuser la galerie c'est pour intoxiquer sur la vraie info aujourd'hui au moment où les gens perdent leur temps ci ay nit yu ñu jàpp Sénégal Macky Sall a ngi koy sàcc mu ngi koy dépravé mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi mi ay ressources mi ngi ñuy endormir ci ay affaires yu ndaw yoo xam ne moom jeu la c'est un jeu politique. Il est en train de casser l'opposition, de mettre en prison les potentiels candidats, parce que il, il se yaya jamise. Il se yaya daf bëgg a delluwaat ci jamonoy Senghor multipartisme la bëgg a tëj def parti unique moom donc mënul ay journalistes yi mu jënd yenn maison de presse yi jënd yenn patron de presse yi ñëw taf leen ci wetam accaparer les partis politiques leurs taf leen ci wetam mouvement sociaux yi nga xamante ne c'est des mouvements de la société civile comme ñun suñu yos ñu ci bëri mu jël leen xëcc taf je peux t'en citer des centaines xam ngeen leen Souleymane Jules Diop Sadji Coulibaly Penda Mbow machin machin ñëpp mu xëcc taf ci wetam donc le jeu démocratique est faussé s'il y a plus d'arbitre s'il y a plus d'opposition match mënul am tant que amul équipe booy dajeel ak arbitre football sa biir dafa am voilà amical lañ koy ñun sur des questions yi interpeller les sénégalais ngeen ñuy dégg su ngeen ñuy xaar ci ay jàpp nañ Modou wala Pathé da ngeen di perdre seen temps parce que duñ ci génn parce que encore une fois ça n'intéresse pas les sénégalais ñi nga xamante ne parti politique yi la ñoo ko constitué ak seen ay membres ak seen ay militants motuñ un million de sénégalais tous les partis politiques réunis motuñ un million de sénégalais waaye voilà ñun nag li ñor treize millions yi moo ñu ñor treize millions sénégalais yi li leen ñor mooy ceeb cher na diw cher na luyaas bi ñu waxoon wàññi nañ wàññiwuñ ci dara njàng mi baaxul nit ñi fajowuñ hôpital am na ay panne ñi ngi def ñi ngi ñi ngi ñi ngi brader suñu foncier ñi ngi sàcc suñu littoral bi ñi ngi tabax ay usine ñu leen neexee à tout bout de champ di sucrer la belle famille di sucrer ay nit ñoo xam ne dem du ñoon dara di def ay di di di di créer ay sociétés yu amul solo Macky Sall moo ëpp ministre Abdoulaye Wade moo ëpp conseiller Abdoulaye Wade cinq ans la waxoon léegi sept ans lay def def na ay brochette de loi ni ñu ko arrangé c'est yooyu moo intéressé sénégalais yi du ay jàpp nañ jiwal de jàpp diw ak diw bi nañu parce que c'est fait de manière sélective directeur COUD enquête yi wane na ne sàcc la jàppuñ ko directeur poste enquête yi wane na ne sàcc la jàppuñ ko directeur port enquête yi wane na ne sàcc jàpp jàppuñ ko te ba tey ñu ngi leen di tuddee ay soirée gala ay lamb ay ay ay concert ci grand théâtre rakku président affaire yi wane na ne ay vingt cinq pour cent lu duuf ci nagu pétrole bi yëpp moo ci ne tout fuux toog kenn jàpp donc justice sélective bi ñun contre nañ ko mais encore une fois nous ne sommes ni l'avocable de X ou de Z ñun dañuy ñaawlu la justice sélective bi am aujourd'hui ci réew mi di ñaawlu ñuy jàpp kumba amul ndey bàyyi kumba am ndey loolu ñaawlu nañ ko mais quant à dégguñu leen ngeen wax waxu yi këcëb këcëb yi néew d'ailleurs on on va vers un grand rassemblement bu ñu tuddee le rassemblement du peuple yoon nañu jeng lu ëpp tuuru incha allah la conférence de presse va se tenir cette semaine ñu jëm ci rassemblement bi très très bientôt